Hmm. Hmm. boo gëmee yàlla ti gëmoo yonent bi doo jullit doo jullit hmm. da ngay gëm yàlla gëm yonent bi waxuma ah waaw kay yow góor waay yow baax jërëjëf saay saay loolu mu wax dëgg la ah. yàlla yàlla moom la ñuy gëm mais yeneen dañ koy dëggal loolu moo wax dëgg la kii xale bii wax loolu lay dëgg mu gëm yàlla waaye bu yeneen day déglu rek déglu rek bul yàq waxi jàmbur bul yokk waxi jàmbur damay laaj waaw léegi daal gëm na ne yàlla am na gëm na na yonent bi yàllaa ko yónni jeex na dëggal na yonent bi gëm na yàlla dangay dëggal yonent ay doo ko gëm amana rasul mm-hmm. jàngoo ko mm-hmm. waaw demal waaw jeex na jeex na jeex na saay-saay la waaye nag am na loo xam tuuti gis nga yàlla nit ñi dañoo ràññewul ba am na wax yoo xam ne boo ko waxee sax mën ngaa am problème ci réew mi mm-hmm. mais yàlla la ñuy gëm yonent ñu dëggal ko nangu ne yàllaa ko yónni nga gëm li mu yore parce que li mu yore yàllaa ko moom xam nga nga nangu loolu waaye nag eh, ku gëm yàlla di gëmoo yonent moom loolu lu mu du wax waaw est que dinañu ñaan yonent bi yonent bi ñaan yonent bi kenn du ko ñaan yonent bi amul lu maye yàlla am lu muy maye danañ ñaan yàlla na ci daraje yonent bi wala ci barke yonent bi mm-hmm. wala ci tedd nga bi wala ci tabe yonent bi danañ ci ñaan yàlla ne ko sa yonent boobu nga bind ci ci dara jaam defal ñu naan man ngaa ñaan ci dara ji yonent yàlla Muhammad waaye mënoo ñaan nag ne yonent bi may ma nangam loolu kenn du ko wax yaa xam nga ne du la ko may da parce que mm-hmm. xam nga lu tax mm-hmm. que moom mu ngi soxla yu bëri mm-hmm. yu fajuwul mu ngi soxla yu bëri yu fajuwul kon yàlla mooy maye yenent bi nag lépp lu yàllay joxe moom la koy jox mu séddale ko hmm. lu joxe rek moom la koy jox hmm. yàlla man lay jox may séddale hmm. yàlla joxe ko kon bi waaye yenent bi lu yenent lu tax yàlla ne ko innaka laa tahdi man ahbabta ki walakinna llaaha yahdi man yashaa doo jubal ku la neex may jubal ku ma neex waaw ci boobu bàyyam aboo taalib la mu ne mu bëgg mu jub mu ne ko bàyyi ko kii du dugg ci lislaam man lislaam maa ko moom diine ji maa ko moom maliki yow mi diini ku ma neex moo ci du yow xam nga loola war yow yonent bi wa maa ala rasul ilal balaaxul mubiin wooteel na leer nag bu lëmas dara na leer nañ waaw ko loolu la ko wax ne ko waaye innaka laa tahdi man ahbabta walakinna laa yahdi man yashaa yàlla muy jubal ko neex ko yonent bi duñ ko ñaan yonent bi duñ ko gëm dañ koy dëggal da ngay dëggal ne yàllaa ko yónni ok gëm nag yàlla yàlla nag boo ko gëmee pour nga mën koo jëriñoo dañ koy wóolu waaye boo ko wóolu du sotti da ngay gëm yàlla wóolu yàlla waaye gëm naa yàlla waaye wóoluwuma ko sama mbir yi dana dana yàqu sama nangam dañ may dàq ah boobaa yaa cay des waaye doo gëmee yàlla wóolu yàlla dara du xew da ngay gëm yàlla wóolu yàlla waaw yàlla wóolu yàlla waaye daal kuy dugg ci lislaam danga nga naan ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu yàlla moo fi bi nag ab ab yenentam rasulullah loolu ngay seede seedeel ne yàllaa ko yónni seede ne yàlla mooy buur bi gis ashhadu an la ilaha illallah foofu mm-hmm. nga wa ashhadu anna muhammadan rasulullah <laughs> loolu la su ko defee ne yàllaa ko yónni mm-hmm. kii nga seede ne mooy yàlla mm-hmm. loolu mu wax muy dëgg mm-hmm. nee na gëm naa ne yónent bi yàllaa ko yónni yàllaa ko jox lim ko jox gëm naa ko nangu naa ko waaye nag gëwuma ne yàlla laa gëm loolu muy dëgg boo gëmee yónent bi bokkaale yàlla la ñuy gëm yàlla ngay gëm dëggal yónent bi sopp sëriñ gëmal yàlla mm. dëggalal yonent mm. soppal sëriñ